salaamaaleykum mbokk internet yu suivre SBT Média ñu am mbégte àndaatee seen émission seeti mbër seet si ki nga xamante tey mooy champion bi ñuy wax Thiatou Walo Thiatou Walo nuyu naa la. maa ngi lay fay bu baax a baax nii maa ngi lay fay bu baax a baax. Thiatou ñu ngi bëggoon a xam Thiatou kan mooy caatuwaalo Walo lu ko dugal ci làmb daam papay mbër wala daa màgg bëgg doon mbër wala lan. waaw am naa papay mbër nag waaye fësalu ma ko de. am naa papay mbër tubaabu joor sama magu papa la waaye fësalu ma ko su làmb ji quoi waaye am naa papay mbër. waaw bu joor sama papa la waaye fësaloo ko su ji waaye bëre moom sama nattu la. moom laa judd di ko def directement football wu ma deux camp ma rit bi wu ma bëre rek ba ma nekkee booy ba léegi bëre lan ma xamee aw ma benn sport may def bul bëre. lan moo tax nga tàmm bëre. non daa nekk sama deret rek li ma bëgg yàlla nattu ma si ba ma nekkee ba léegi xale ba léegi moom laay sport boobu laay siiwur mën naa ne métier bu ma liggéey ba jàng ci métier ba beru sax bëree ma fa yóbbu bëree ndax dama doon dem làmb ja sama waa waa fulaadu bu ñëwee di entraîné man ma dugg si place uude bi fa toog ba ñëw bu ñëwee ma bàyyi liggéey may liggéey dem bëri ji ba ma nekkee booy bu ndaw fa laa jàngalee métier bëree ma utal sax métier ndax bëgg bëre. waaw ñu gis la nga nga mel nga meññee si keppaaru fulaadu. waaw. ñoom rek bu. waaw keppaaru fulaadu fulaa fulaa dara maa ngi nuy jëwrin bu baax a baax jëwrin Ablaye Guèye ñu ngi koy nuyu bu baax suñu mandat gàkko di leen jox seen wàcc waaye baax ñoom xaari wax si làmb après si kam tuddi ñu waaw nga xam caatu waalo si mbapat yi dafa mel ne gisuñu caatu waalo ci mbapat yi non caatu waalo boo nee boo nee caatu waalo moom gis ñu ko si mbapat yi non man damaa manqué am ratif même lamb simple lamb simple boo nee adressé ngoon rek laa ñëwagul waaye ndaanaan ni nekk yëpp lamb simple yëpp bëri naa ñoom si àll bi comme kan nga daan si lamb mbapat bari na gis ko muy toj si si arène bi ñu ma daan si ay mbapat <laughs> bari na ay Evra Rouge ay bébé ama nga gis ñoo ñëpp daan naa leen. ba léegi waxagoo ma fi champion. kan Evra ah, Rouge. kuy toj lamb ji. kuy toj lamb nii nii nii. waaw général Malika. waaye yow man bëre naa ak général Malika daan naa ko tournoi Sokh deux fois Sunjata ay champion laay limal. général Malika bi daan rëg rëg. déggoo li ma la wax général Malika bëri nañ deux fois tournoi Sokh daan naa ko ci bañ tournoi Eumeu Sène ñu bëri ba të. xanaa lu amul seede baaxul tournoi Eumeu Sène dañoo bëre ba mu të. seede yaa ngi mu seedaan de. Eumeu Sène li ma lay wax na seede tournoi Eumeu Sène dama koo bëreloo ba Eumeu Sène ma booy foo dëkk loolu kay seede yaa ngi fi daan naa suñu jot ak ñoom caaga fay. bu bu boxe saw. daan naa suñu jot ak kayit loo xam daan ko man damay bëri tournoi si àll jël ay nag. zone Saloum foo taxaw ba ne caatu waalo ñu ne la xam nañ ko. damaa wër Saloum ñaata non wax dëgg fa yàlla mun maa compter samay drapeau mbapat de <laughs> su ma waxee dëgg ndax ba ma nekkee booy ba léegi jamono ba ma korket ba léegi maa ngi bëri mun maa ndax samay grand ñoo ma doon tegal ay ñoom abukat di ma jëndal ay ba ma korket di ma tegal may bëri ay ñoom sam ñoom joo ñoom gi daa ñoom Mamor Baabu ñoo ma doon tegal ma bëgg bëri ñooñu noonu noonu noonu noonu. moo tax bu ñu si bu jugee si bëre simple bi ñu ñëw si nga xam ne mooy arène bi bëre dóor bi ñaata combat nga am si arène. arène am naa neuf combat. ñaata victoire. ah deux défaites rek laa am. kan ak kan ñoo la daan. anti rek ak booy Dakar ñoo ma daan. kan ak kan anti ak booy Dakar. kase te boobu fukki de laa booy moom ma jàppoon de la zine waaye instant bi moom wax dëgg màgg naa damay ñëw làmb yaakaar ne man maa def lépp nekk làmb na ngay jox ñam sa morom ñam maa ngi sant nag sama course baay mi ci salle bi. di sant sama gars ñoom Assane Thiès sama course zero Mamor Ba sant di nga sant di gërëm. mais ñu gis ni ñaar ñi nga wax ñoo la daan si làmb ba léegi làmb déggaguñ leen si. non ñaar ñi ma. ñaar ñaar daan. man sama premier combat maa ngi bëri mbir dañu yaay numéro 2 sama deuxième combat maa ngi ko bëri bébé Ama bébé Ama bëri na ay grand combat. bébé Ama bu Faalaye. maa ko njëkk a daan. maa ngi Paul Maurice fa spécial maa njëkk daan Paul Maurice amul woon defet caatu maalo maa ko daan. fi booy tëb maa daan booy ba garga sept victoire la teg maa ko daan arène nationale soo sa maa ko daan ba boole mooy am 17 combats. mais dañoo dégg sa combat boo xamante ni nii Pikine grand place yi buntu école yi jeunesse boo wax boo ko laajee combat caatu waalo danaa la moog papa laay ba Abib Ndiaye. non instant bii nii nii nii maa ngi si avant nii le 29 la war a bëri nii grand combat arène national. dama am combat grand com am arène national combat le 29 grand combat bii di ñëw maa ngi ñagas bool. yaa ngi ñagas bu bool. waaw mais lu tax nga jël ñagas. waaw dafa ngay moytu papa laay wala lan. non booy du maanaam bu. tëkku nii mbër yomb na waaye man Thiatou Walo moom adversaire moo gën a jafe fii tëkku mbër nii yomb na waaye bëreeg moom dafa jafe quoi man na dama faa ñëw rampe daan titulaire yi fa nekk yëpp daan ay sondel bu Pikine bi gën Fallaye Balde Pikine ñëpp laa dan boo yi fa nekk yëpp. loolu kay leer Pikine ñan comme damaa ñëw tournoi du benn yoon du ñaar yoon. roñ ñëpp arène laa wax arène bi kan nga ñan nga daan Pikine arène bi. arène bu ma liimee bébé ama Pikine la nekk. Zil si Junior su ma ko liimee. Pikine la man men bu Fallaye su ma liimee kay daanoon si Balla Junior si Balla Junior la wax su ma la limalee Pikine dama kaa dama nga wax ñooñu ñëpp mbabat damaa daan leen arène bi wax si arène bi waxuñu waxi mbabat mbabat du la wax Pikine ñaari laa fa bëri loon daan leen Pikine ñaar laa fa amoon ñoom laa ubbeekoo daan leen instant bi ni ban adversaire Pikine ngay tuddati man kay booy wax papalaay combat la yow dafa nga ragal papalaay Papa Laye kay yow yow moom yaa may doon Papa Laye nii caatu waalo foo taxoon nañu. Papa Laye bi Habib Ndiaye. yow yow waxoo ma ay ñoom Koña ba Habib Ndiaye nan ma ñoom Papa Laye non eh, mais yamal nag ay noonu. yow waxoo ma defal nag ay kooñaay ay noonu da ngeen ku jël avance ñagat bool waaw léegi jën keere. xam ne kooñaay du sa morom. léegi ma laal bu bëggee dégg la de mel ne ay ñoom Papa ñoom kii. mais dafa léegi yow ba ba léegi wax ñeme dafa mel yow déggoo ma la wax ay ñoom Koña bu ma jugee si combat bi ñooñu laa bëgg a bëreel ngaan ma ni. ku bëree Koña du bëree ak sa yow yow. tamay bëree ak tamay bëree ak ñagas nii. Koña bëree ak seen kere. daan dumbul. doo ma déglu ma wax la ñooñu ñu daan ñëpp man champion ma daan si lamb simple bu ñu ñëwoon duñu moom loolu bu ko addi ma man dama manqué sama impératif lamb yi fu mu toll nii ba dafa mel ne yàgg ñeme woo ko ba ba léegi nangoo ma réellement sa combat yàgg Papa Laye tam man intéressé naa ñetti ñu ni combat caatu wàlla a neex damaa ñëw Pikine dégg la wax ak Papa Laye damaa ñëw daan ñu fa tëj ñëpp boo yi fa daan déedéet <laughs> bul ne ñaari ñaari mbër daanu ma fa ñaari mbër de bébé amaa nga fa daan ak sondel waaw des na de Igiri Falaye Balde daan naa fa deux ñoon nga daan si arène bi Igiri Falaye Balde naa fa deux ñaan ñooñu nga ma daan bébé ama ak Soner déedéet équipe Falaye Baldé daan naa ba deux personnes. ak kan. daan naa ko tournoi soq. arène bi laa la wax si arène bi si bëre dóor bi li laa wax arène. non bëre dóor samay adversaire ñoo raw ñooñu ba ma la limeree soo sama ne 17 combats nga xam ne kon maa ngi ñoom bokkuñu adversaire man sama tour daa jiitu arène arène bu bëree quoi sama tour avant ma ñëw si arène damaa manqué sama opérative man damaa jël ay tournois nag ñu teg ma gàddu indi watat indi sama yaay nelaw ma foog ko taxal ko nag. damaa màgg sama rajo de damay génn di màngaane si àll bi. mais ñu ñëw sa combat yaag ñagas le 29 est-ce que nekkul da ngaa jàppoon ni ñagas moo gën a nooy moo nga jël ko. champion ñagas. ñagas moo nooy ku ne ñagas daa nooy dan lay ndax de. est-ce que nekkul nga ut yoon yoon da nga ut yoon. ñagas di teggi man ku fi ñëpp bàyyi laa jël ñagas ndax ndax dóoram te combat bi dinaa ko ba muy bi ñëpp xam na ne caatu waalo man damay ñëw rayanteeg ñagas. caatu waalo mënoo dóor ñagas nag ba muy bëgg dee. bu soobee bu soobee yàlla bi ñagas bu soobee yàlla yontu bi du xeex du bëri lépp maa koy def liy neex si làmb ji. dafa ati na koy li ma la wax seen patron damaa daan soose maane. mooy ëpp victoire fuuf seen mag. loolu du si dara ñagas moo la gën a xam kii caatu waalo su xeexee day neex su bëree day neex bu fi ñëw pere naa mënu maa sama ma mafia dañuy sonn si man ñu si mel ñoom ndongo mafia bi ñoom pati. non non ñoom Pam Ndour mafia bi dañuy sonn si man waa groupe WhatsApp bi dañuy sonn si man. billaay wallaay. nga bëgg naan maay ñagas man sama bët teg naa ko fu dul ñagas. mais ñagas tamit champion la de. ñagas fere na na xale yi de. combat bi laay wane sama bopp kuy caatu waalo. li may daj ci dini. yéen nga toll si wane sa bopp ñagas dafa toll foo xamante ni nii dafa war a dem. moom ñam na ñamaat déggoo li ma la moom ñam na ñamaat. day day xaar ba jamono neex <laughs> ñam na ñamaat man may doog a ñam grand combat sama buntu àdduna. est-ce que jàppoo ni jamono fii la war a neexee. fi laa gar sama bakkan bi combat bii ku may jàppale nag ma jàppale bii te si kàttanu yàlla ak yonte bi lu ma entraîné gëm ko dama koy daan incha allah rabbi si àllande lu ma gëm laa lay wax nii. ah mais li nga wax sa gëm-gëm ça ne veut pas da nga koy duma daan ko parce que ku xam ñagas xam du arrière du dellu ginnaaw. yow ñuy sonn si man ñoo bare ay abuka ay àndaw ay metre jaali kan ay dan ñuy sonn si man ñoo bare du ma jox seen alal déggoo li ma la wax. garaay nekk suñu koñ ma mënu ma limal dan may ñëw di ma jox nongo moom maa tax joxatul këram dépasse li mu yor man la koy jox. nga an ma ay lii. mais ragal naa combat bi mën nañ est-ce que mën nañ ko xaar mu jeexee si bëre. wala si xeex lay jeexee dañuy xeex dañuy bëre. mais boo xeexee ñagas dóor la nga wàcc de. yee man maa ko dóor mu wàcc ku wax waalo xamee ko dóor. kii kii saafoon te ñoom Assane Thiès ñoom ñoom Garga béy ba Garga Fallou gi taxaw di jonte te ñoom ah. est-ce que ñeme nga taxaw nga xeex ak ñagas. xanaa seetaanoo samay combat ay xeex koy yàq damay topp mbër dóor ko ba mu génn sax ma ma ñëw indi fukk xanaa seetaanoo samay combat. mais ak i ñagas ku toll ñagas bii déggoo li ma la wax. si kàttanu yàlla ñagas di day dama du ma moom dañuy saabonte dóorante ba ne saay Yékini waxoon na fi Korbala waaye moom bii Korbala mag bi na gën a ñëw ndax xam naa ne moom faaw faaw faaw ñu dóor kenn ba mu tëdd si stade waaye mboqam jël ko yóbbu mënul ñàkk. ah est-ce que nekkul jàpp ni yow Korbala yàpp est la si yàpp. déggoo li ma wax <laughs> li li neex si stade bi si kàttanu yàlla yont bi incha allah rabi maa koy def. ah mais doo jàpp doo doo doo démarrer <laughs> noonu si làmb ja. ba dem ba jour làmb ja loolu nax la. xanaa déggoo la ma wax caatu wàllu fils de mère mana deux ans deux daa ni sama yaay mënee rëgal man nit ñi di si jaruñu noon laa mën a rëgalee mbëri ba mu saf sàpp xanaa leer na. nga naan ma nit ñi ah, dafa mel ni dafa ñoo gis benn excès de confiance bu mag ci yow. man ay xaadim mbay dafa am lu ñu wala lan la. ñuy sonn si man ñoo bari. ay xaadim mbay jaraaf sëñ Cheikh maa ngi koy nuyu bu baax sëñ Cheikh day jàpp si combat bu baax a baax a baax. ñoo dinañ nekk sa kaw di la dooleel ngay ragal man def ma dara damay entraîné ñëw jàng naa métier ba sama patron ñaanal ma su ma amul combat dem liggéey si mbaan waaye instant boo bëggee dégg dëgg ñu sonni man dafa bari sama groupe waa fan si club bi maa ngi sant ñëpp ñëpp bàyyiwuma kenn di sant Serigne Gueye Mourou Sade bu baax a baax di sant sama doom yaay Lamine da ciy jàpp bu baax ak daam sama rok ñagas nee na combat bi ngay noppee teg sa bët waalo du bawal yée déggoo li ma la wax damay daan ñagas laaj Bour Sine mu gën a tàng ñagas. kii Bour mu am seen junior bi déggoo la wax si kàttanu yàlla damay daan ñagas laaj Bour Sine. caatu wàll dafa nga nga mën nga xaw a exagéré mi wax ngay ay Bour Sine yow yaa ngi combat yaa ngi ñagas génn goo si ñagas. déggoo li ma la wax yi nga naan Bour Sine. yee ñagas déggoo li ma la wax ñagas arbitre bi sifflé moo wax fi bàyyi maa gën a pere fu maa gën a liggéey man combat ak ñàkk combat damay entraîné bañ naa ko ba su ma amul combat damay jël sama licence dem bëri si àll bi déggoo ma la man xaalis làmb mooy dundal xaalis làmb damay entraîné ji ñiy sonné si man bàyyiwul ma man seetaanuñu ma maanaam. benn yoon mais jël ñagas yow réellement sama kër su Arouna Sall ak Zil dama ne ñu jël yaa ko mën fuuf leer na. mais seen nekk lu moo doon man maa laaj ñagas maa man maa laaj ñagas maa ko soxla maay bëre maay daan si la palaa la. mais la moo tax nga laaj ñagas la moo tax nga bëgg maanaam sama man damaa war a wane sama talent si làmb ji pour ñu xam kuy caatu waalo man bëreeguma xeexaguma si làmb ji nii nii nii bëreeguma waneeguma sama bopp ñu xam waal dëgg xam qualité yi si moom sama bët fu ñoom Modou Lo nekk fa laa ko teg si kàttanu yàlla yónte bi dama fay yegg incha allah rabbi bëgg a wane sa na nga dem jël nga xamante ni nii mi ngi jeexal xale yi muy ngir yàlla est-ce que loolu nga jàppoo interview ko bu baax a baax a baax ñaga dinaa ko daan te di nga ñëwaat si kàttanu yàlla introwaat ma mën la man sama bët ci ponkol yi laa ko teg déggoo ma la kër ga baraag la courant ñëwagul ndox ñëwagul maire bi daa sonn si ñun déggoo ma la <laughs> illaahi wallaahi dina xam ne. <laughs> waaw waaw maa ngi sant nag laay sànni ka bu baax Papa Ndiaye Sam dañ ciy jàpp bu baax a baax di sant Ndayane Awa Balla Modou grand Modou da ciy sonn baax a baax As borom Por Pape Dia ñoo ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax ñooñu mënuñu ñàkk ma fi yaa karaa bi nag amuma seen fay. di méttiwul su Alioune suñu patron Alioune ko dal si làmb baax a baax ñoo ngi koy ñawlu. bu baax a baax ñu ñëw si loolu. ñu gis ni li ngeen gisee sanction yi nga xam ni moom lañ teg kii di Aliou Seye ak ñàkk jariñu sanction yooyu ñu teg ñaari ñaari équipe yi noo ko jàngatee. non Aliou Seye 2 dafa pare kii ñagas. ñagas kii perew non tiidu ma sax man maa ngi ci ñagas di waaye li may laaj nii ñàkk mu bëgg a wax nii sax moo yóbbu sax nii ñàkk dama ko mere moo rab li ñàkk dama ko mere bu ay waxi ñàkk dafa perewul quoi ñàkk wax dëgg fa yàlla mbër làmb foofu noobu la quoi sport bu neex la waaye nag ñagas ni mu doxalee boo xoolee dafa dugg ci làmb yi rek commencé saaga sport loolu quoi ah boo paree ñàkk ni dafa dugg rek commencé saaga man dama koo mere ba léegi may wax yow de moo tax pour ma tudd turam sax dama may meet nii su ma tudd turam sax ma du ma neex ndax dafa perewut làmb foofu noobul la. mais ñàkk pere ba ànd ak ay mbokam pere làmb ji ba toll foofu. mbër dina ñëw te jek moom jekkul Alioune Seye 2 physiquement moralement man mi ànd ak Alioune Seye 2 ñuy matinaalu avant combat ba léegi léegi ba ni ma amee combat ñu continuer buñ ko defoon paquet saako paquet de biscuit ñàkk du benn benn doom. mais est-ce que gisuñu woon comme Alioune Seye pare na. lim daj ci combat bi nit ñi namoon Alioune Seye 2 est-ce que laa jarul woon moom mu sauver làmb ji. ah mag de dégg naa olof di wax mag lu lu mu def ba dee ba dekk su dekkee ba ko ñaata combat Alioune Seye 2 capital lañ ko sotti gàllaaj ñëw daan ko ah mu amaat buntu àddunaam biir xulu ñu koy soppiwaat gàllaaj te faju ko waaye loolu bu ko fajul woon sax ñun booy ñoo koy faj li lu ñëw woon la ba teg ko. Alizé 2 ban na ko ah ñu ne ko sa combat chaque jour da ngay def ba ñëpp yaakaar ñu sotti la galaaj nga nagam bii nag loolu du si am loolu kay leer na. mais ba ngeen ñëw si làmb da ngeen ñëwaale violence. dañoo ñëw suñu làmb préparé ko jël ko on sérieux suñu kër su réunion ñu lu war a réunion. boo xoolee Alizé moom rek nekk si géej ak deux accompagné

mbër mu sotti mbër gàllaaj dañ koo war a disqualifier direct laa mu foofu noobul la dañoo war a ñëw mbër mu ne koos rendez-vous ku wóolu say bitéel mu doy nga sangoo ko bul lijjanti bitéelu jàmbur man loolu laa gëm man su may bëri booy mbër mu may sotti gàllaaj dama naan booy taxaw leen maa jëflante ak moom mbër ak mbër sax garaawut bu doon mbër moo jël gàllaaj sotti ko morom mbër mbëroo mbër du ko dóor waaye da nga gis benn mu suum gay ba xam ne tekkiwul dara fa mu dëkk jaruñu fa dara ñu lay jox gàllaaj ngay ñëw ku feral làmm ay million am làmb benn tàkkusaan la ku daanu rus ah noonu lay réagir loolu lay réagir mën naa la sital ay sept combats alizé day xam ne doon koo sotti galaaj comme noonu mu ñam loo ko paa waxee ñebe sax mu sotti nañ ko mën mun a am. gis na ni alizé day dañ koy sotti combat galaaj mu nagam mu daanu kon yéen ba ngeen ñu si lam yi indaale ngeen violence affaire yooyu. déggoo lu ma la wax indaale ngeen violence wax mënul di ànd ak ñun bu amul combat un an di ko yëg diin bu amul combat ak am combat di jël alalam ñun booy yëpp ak karaa di ñu jëndal ndékk te loolu jafe na mbër mi ànd ak lu mat ay 30 personnes deux oto la ñu yóbbu L200 bu ñu ñëwee toog si place ndékk mu fayal ñëpp loolu jafe na moom war ñoo gën a góor a bëgg ñu combat man damaa am contrat damaa ñëw si stade bi tere na ma sonn ma ñëw waaye mbër bu naree bëri si daa yomb a xam ñàkk dafa dugg di saaga ay ndey ak préparé li mu préparé rek nit moom mu may wax rek sama entourage mënut a sotti nit gàllaaj te man yëguma ko <laughs> loolu moo amul fenn loolu amul fenn. sa entourage mënul sotti mbër galaaj. teew yóbboo amul fenn. mais ñu gis nañ ni Alioune Seye 2 ba mu doon jàpp dam dabe waa ji dóor ko est-ce que mënuñu woon jàpp ni fa la waroon a yemale affaire pour sauver lamb ji bis bi toll noonu. non waa ji boo bëggee dégg-dégg. waaloon waa ji moo njëkk a dóor lu mu yoroon laar bi mu yoroon moo am béjjën laar bi. mort lu mel ni mort bu du mu yoroon loolu laar daa am béjjën loxo gauche bi moo boros Alioune Seye 2 fii signe bi mu bët waa Alioune Seye 2 koo xam-xam ne du yàq làmb ku bëreeg ñoom Modou Lo bëreeg champion yi daan ay yandaa yi gën a tëj si làmb ji xanaa cat bu rëyul semblaay mu mën ay ñàkk jariñ ñàkk jariñ man mii rek maa ko mën nga xam ne ay ñàkk jariñu gars yi nee nañ combat bi dafa ñëwoon pour confirmation mu échec gars yi nee nañ seen diggante caaro yi ak géejawaay waaw lan moo nekk si diggante bi parce que gis nañu ay ñàkk ba muy dugg si stade bi waa Géejawaay supporter Géejawaay ñu koy saaga. non ñàkk lan la eh, man maa ngi kii ñàkk dafa dugg rek commencé saaga man mbër laa dafa dugg saaga ma ree ne kii jekkul bu jekkoon mbër nan ngay duggee si doo tal say léemu def say ñaan ak say lisaar doo ko mbër bu lay saaga da ngay du mooy man aw ma aw ak supporter bu may saaga sama morom mbër sa su ma saaga damay bàyyi ba arbitre bi man la eh nga ne ma ah man la li waaye waxoon na sa dellu yaa ngi nii maa ngi nii lool mooy yëfi góor la dëggeer njëkk na koo wax la dëggeer interview avant loolu am nee na ñàkk dañoo saaga teguñu fenn Lac de Guiers avant loolu di am li bàyyiwul kenn ñëpp non ñun arène nationale suñu kër la ku fi ñëw dañ la fi ëpp doole mënul ñàkk stade dañoo jege Alizé de li fay saf xorom xorom ak suukar yëpp moo ko fa def loolu day leer ah gis nga ñu ngi doon fàttaliku ñu ngi seen émission seeti mbër doon dala ki nga xam ne mooy champion bi ñu wax Caatu Waalo léegi ñu bàyyi la nga woote gërëm ku wax mbër wax jàppale waaw combat bi nag maa ngi si woo ñëpp bàyyiwuma kenn di si woo sama course yi en attendant premièrement ñoom ñuy sonn si ñun ku si mel ni suñu grand Arouna Sall Zilba maa ngi si woo ñëpp di si woo Baye sal bi may entraîné sal sàmm sa coloré laa ko tuddee waaw fi may entraîné di si woo ñëpp mafia maa ngi si woo groupe fan si club Thiatou Walo lu ko dalee si président ñëpp maa leen di woo ñuy sonn si ñun maa leen di woo bu baax a baax ku si mel ni maa ngi sant nag li ma koy waxee abu ko sam gindaa joom Mamor Baabu je maa ngi koy sant Asfora maa ngi sant bu baax baax sama benn grand bu baax a baax ak ñoom Iliman maa ngi leen sant ñun dañoo di sant Lamine Ba bu baax maa ngi sant nag bu baax a baax a baax monsieur le maire Baydi Ba Andaw Ndiaye Andaw Andaw maa ngi koy sant day jàpp sama combat bi di premier combat ba léegi Andaw musuma neenal maître dan nag maa ngi koy sant bu baax a baax a baax da ciy sonn bu baax a baax maître Diallo Kane tamit da ciy jàpp samay combat man caatu waalo da ciy jàpp bu baax a baax a baax di sant nag sama benn paa Cheikh Yade sama paa Cheikh Yade dama doon ñaanal waaye gëj naa te combat bi si kàttanu yàlla seex Yade dina ma gis sama benn paa <laughs> Cheikh Yade maa ngi koy woo si combat bi combat bi combat la. sama waa koñ na maa leen di sant ñu si mel ni ñoom gindaa Sam Mamor Baaw mun ñooñu mun ñoo ñàkk mafia bi Pam Dur Baye Fall bi Nongo Modou Fall ma toogal Assane Thiès sama gars am combat maa ngi koy ñaanal. suñu borom defal leen ko di sant ñëpp nag sama waa koñ sama yaay nag mention spéciale combat moom laa koy bëreel sama combat yaay la maa ngi ñaan yàlla na nga suturaal ma nii ma koy bëgg a bëreel sama yaay nga suturaal ma sama combat yaay la di sant nag sama gaay yëpp Pati Omar yaay si ñoom ñëpp waa Sambour neuf maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di woo ñëpp si combat bi nag waaw di woo Dame sax France Lamine Baye Fall lu mënta ñàkk Lamine maa ngi koy woo na ñëw jàpp si combat bi Cheikh Fall Baye Góor maa ngi koy woo si combat bi yoro sa pare maa ngi koy woo maa ngi woo ñoo ñëpp na ñëw jàpp si combat bu baax baax combat bi seen combat di woo Pablo si combat bi Pablo parce que Italie maa ngi koy woo ndax ñooñu dañ may jàppale combat ak ñàkk combat la ndax yónnee na ma ay séentuur ay gars yi may entraîné lépp wax dëgg fa yàlla moom maa ngi sant bu baax Pablo ñooñu dañuy sonn si man di sant sama waa koñ nag ñëpp mbër si koñ moom dérangement la waaw di gërëm ñëpp waaw. di leen jaajëfal Père Alsane maa ngi koy sant Alsane balaa maa faat. di leen sant di leen jaajëfal di leen jox dig di si beneen émission seeti mbër ak beneen champion. nii rek lay demee saa su ne fii rek lay xewee seen émission SBT Média fi waay mbër nekk si biir Sénégal dinañ ko jëli na nga waaj te pare. waa ñetti mbaar waa ñetti mbaar ñoom kàbb maa leen di woo. di jox dig daje incha allah ay ca ñu dem nii rek lay demee saa su ne. yooyu teew ñu alal bërël bërël bi te de Oh, boy, Samba.